jërë ngeen jëf Famara Ibrahima Sagna jàpp leen tur bu baax a baax ndax l'observateur nee nañu bu ñu moytuwul dialogue national bi ñu war a amal ci réew mi suba moo ko nar a jiite yéenekaay bi xamal nañu ne ci jamono ji nga xam ne société civile bi ña ca fare professeur Babacar Gueye ak Mazid Ndiaye ñoom moom la ñu tànn ngir ñu doxal dialogue bi noonu aligné yi tànnoon professeur Aliou Sall ak Babacar Kanté président Macky Sall moom Famara Ibrahima Sagna la tànn ci ni mu ko tànne l'observateur nañu ab liste la ñu ko jébbal ci liste ay tur da caa nekk waaye moom président Macky Sall ci boppam moo seppi turu Famara Ibrahima Sagna ne moo ko ci yëf kan mooy Famara Ibrahima Sagna l'observateur nañu un homme dialogue ñaar fukki fan juróom-benn ci weeru novembre ci la juddu ci Ziguinchor ne woon militant bu parti socialiste waaye bi ko Abdou Diouf defee woon ministre intérieur ci ci la démissionné woon ci biir parti socialiste ndax dafa gisoon ne mënut a doon ministre intérieur ba noppi di am fenn fu mu féete ci wàllu politique yi président Macky Sall di séentu ci dialogue national bi bi ci njëkk yéenekaay bi nañu président Macky Sall nee na dafa bëgg a dooleel déggoo gi ngir ñu jubloondoo ci wàllu émergence mu di ak yokkute ñaareel ba di fexe ba gën a jëmale kanam système démocratique bu Sénégal union des magistrats du Sénégal am nañu lu leen metti les éco nañu loolee leen metti ba def leen ñëgg-ñëggu xol mi ngi jugee ci maître Mbaye Guèye mi bâtonnier de l'ordre des avocats kàddu yi mu fi yëkkati kay rak moo neexul magistrat yi moo waral kuréel gémbu magistrat yi réew mi di union des magistrats du Sénégal def seenu communiqué di ko wax ne bâtonnier bi wàcc na ab àndam xel mënul nangu mu wax li mu fi wax baa mu doxalee ni mu doxalee bay yegg sax ci di menacé waate la Sénégal nañu waa UMS di Union des magistrats du Sénégal dañoo yamale maître mbay Guèye tegaat ko ci palaasam ci li mu ne bu ñu ko moytuwul dina wax ci justice u Sénégal luy tàkkate du fay wax ci lu kenn dul weddi Le Quotidien nañu waa Union des magistrats du Sénégal xamal nañu bâtonnier maître Mbaye Guèye ne li mu def moo di dàqum ginaar waxaale sa soxla waaye amul benn disposition légale buy tere ñu teg loxo nit ci kanamu kaso Vox Populi nañu bi andi na ak pëccaxoo ci justice bi tax na ba magistrat yi réew meek kaw ak réew mi di xottante ay robb borom robb yekk musóor yi di jigéen ñi Sud Quotidien nee nañu fipp nañu nee nañu dafa doy keroog samedi kuréel gi di collectif contre les violences faites aux femmes et ñoo woote woon ab toogaanu ñaxtu ca place Obélisque ñu bari ci jigéen ñi demoon wuj leen la fa doon manifester que ñaaw la ko naqarlu Sud Quotidien nañu moo di nit ñi fitnaale jigéeni réew mi di leen yekkataan di dal seen kaw dem ci sax ba di leen di faat loolee la ñu bëgg mu dàkk bëgg na it kilifa yi jiite réew mi jël ci ay matuwaay nu mu gën a yi yamul woon rek ndakaaru jigéen ñi manifesté nañu ca Tambacounda manifesté nañu it ci Ziguinchor anki dina kay di ñu xamal ci weneen wàll ne député yu jigéen ci assemblée national li ñu bëgg moo di jël peine de mort bi yóbbu ko assemblée national ñu waxtaane ko foo xool ndax dañuy dellu si peine de mort ci réew mi am déet réew mi ja nañu bu ajoo ci état bu senegal rekk de du am ne état bi nee na kenn du fi dellu si peine de mort maître Alaaji Diouf nañu ci ñoom am ne seek yeneen xeeti kuréel yi bañ ñu dellu si peine ci réew ñoom ñëpp a yem ay faramaçon lañu ci jamono ji ñuy waxee waxi penda moo rek waxi ku rey nit dañu laa war a rey l'observateur ne nañu am na benn bay Faal bu rey benn sàmmkat ca Bambilor waa ji ceex na Sow la tudd Les Échos nañu Baay Faal bi fital la dóor sàmmkat bi mu faatu Vox Populi dëggal xibaar bi ba xamal ñu sax ni leen di coow li ba jëye ji topp ci Baay Faal bi fital sàmm bi mu dee moo di nee nañu sàmmkat bi dafa bàyyi jur gi mu doon sàmm ñu dugg ci tool bopp Sëriñ Moodu Kara moo ko moom